dañoo gis fan yi nervi yi jàpp maam nit ñi di leen néewal doole en tant que sénégalais yow tey lan nga mën a wax ci loolu. ah loolu de gouvernement bi nga xam ne ñoo war a ñoo war a ñoo war a protéger population bi ñu leen ci jàppale di leen ci encourage ndax góor boo matee góor antenne ba ceene xalaatoo ci lenn lu ñu lay fay pour ngay néewal sa moroomu sénégalais comme yow loolu ñàkk jom mënu ko wees góor bu bu tollee ci liggéey dafa war a liggéey am jom fa seenee samp kër comme ni ko baayam dafa yoon waaye ñu entraîné ba ceene di di di yëgadi say poids tool ñu la neex ñu lay fay pour nga ci néewal sa moroomu doole sa moroomu sénégalais doole loolu ñàkk jom mënu ko wees loolu moom dafa ñaaw parce que ay ponkal góor yàlla jàpp seen moroom yi rek wala seen moroom yi doomi sénégalais di leen jàpp di leen néewal doole ak di leen maltraité ak di leen def lu leen neex loolu moom dafa ñaaw trop parce que ñun seen yi xamuñu lu dul liggéey ñàkk jariñoo waaw kon war nañoo mën a jàppale mais pas di ñu booleeg ay ponkal yoo xam ne ni dañuy dóor ñu néewal doole xam nga dafa ñaaw te loolu boo xoolee état bi la neex parce que état bi tey bu taxawoon ñun seen yi ñu jàppale ñu dimbali ñu pour ñu avancer mais pas moo gën ñu ñu boolee ay ponkal ñu ñu dóor di ñu néewal doole ñu liggéey rek leen gëm ak jàmm yàlla. nervi yi ngay gis ñi ñëpp ay anciens lutteurs lañ ay anciens lutteurs ñu ñii dañoo nekk ñu ngi ci arène bi. bëgg nañu bëri amuñu combat moo moo waral ñuy engagement yenn engagement yi mais loolu dafa ñaaw quoi entraînement garde de procès dafa am spécial ñu koy def dangay ngay def formation am sa carte professionnelle nga door a def garde de procès mais doo ñëw jël ay lutteurs yi ay ancien lutteur wala mbëri yoo xamante ne bii tekkiwuñu dara ñoom ngay jël ñu doom ci ay doomu aadama la ñu dóor dañuy dóor seen ñi ñuy dóor seen i mbokk lan rek mais loolu dafa ñaaw fii quoi dëkk bi du dëkku dóorante dëkku diine la ak l'islam dëkku maam limaamu laay bii Serigne Touba Serigne Babacar fii dara lu ñaaw moo fi war a jeex parce que wax dëgg fa yàlla li ngay dox dox li nga war a dox yëpp a dugg ci ay provocation ak i xeex ndax loolu noonu day andi pëccëxoo biir Sénégal quoi te loolu dañ ko war a daw dañ ko war a éviter carrément. comme nee na mun ñàkk est nekkul tamit gars yi def formation bala ñoo wàcc ci terrain bi di di di ba ba ba muy jar ñiy jël seen moroom sénégalais di leen dóor. loolu ñaari choses yu ute la. am nga ci ñoo xamante ne ñooñu ay garde rapproché la ñooñu dañoo am formation bi war xam nañ ni songee xam nañ ni ñuy appréhender situation ba tegee ko bor mais gars yi ñu nekk di def ni moo dul yoon jël ay nit ne ñi di dóor di xoxatal ak def lu leen neex moo dul yoon nag te fi mu ñu jëmee tamit euh, du loo xamante mooy li gën ci Sénégal. mën na nekk formation gisoo comme am na kuréel gu sampoon gu mel nii euh, comme euh, ngeen sampoon fan yee ci passé. ñu leen ñu leen di fay ñu liggéey di di di aar sénégalais loolu amoon na fi waaye tamit maanaam dafa am benn côté boo xam ne tamit loolu état bi la arrangé da leen a arrangé bu mu deñ waaye lii moom ñu ñëpp war nañoo pour wax mu deñ ndax ku la yàgg di néewal doole di la yàgg di néewal doole rek bis dina ñëw mu taxaw pour riposter te bu riposter mën naa indi ay jéey yoo xam ni day doy waar loolu population bi ndax Sénégal dañoo dañoo xool ki nga xam ne moo ñu arrangé mu neex ñu muy Macky Sall mu ñu fal ko ci réew mi pour mu aar ñu aar ñuy bien aar ñu lépp léegi nag bu taxawee di seetaan ñi nga xamante ni ay nit la ñoo xam ne ñoo taxaw fee rek entraîné ba ci taxaw ñu jël leen di leen fay pour ñuy nekk di di tooñ ay sénégalais comme ñoom loolu état bi la neex rek bu leen neexoon tey tey mu mu dañ. boo entraîné ba ceene am sa doole am sa xel war na laa mën a jël ñu formé la buñ la formé après ñu ne la temps bi nii la nii ngay doxalee nii ngay doxalee ah, nii ngay demalee pour nga mën a ànd ak gars yi pour nga mën a nekk ak yi su ko defee yow boo génnee. koo mën a dajal li nga xam nooy doxalee ak moom ba li nga bëgg ci moom nga am ko mais pas ngay romb di dóoraateeg di dóor ay di yor ay cour di dóoreeg yooyu dafa ñaaw yooyu yooyu rafetul sa boo xoolee rafetul ci image Sénégal bu mu leen tere waaye boo xoolee seen yi leen jàpp di dóor quoi parce que la fois passée gis nga li xewoon ci ginnaaw gars yi yor seen i oto di wàcc di tali bi di dóoraar boo xoolee gis na ci ay élèves yoo xam ne nii dóor na leen ci te ñoom seen yoon nekku ci parce que danoo jàng bam di wàcc ñu leen di dóor am dafa ñaaw te loolu lépp nag boo xoolee état bi la état bi maanaam du nguur buur la ñoom lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy manipuler sénégalais yi ñu sénégalais xàppiwul ku wax ñu jàpp tëj dóor la tuumaal la xam nga. garde de projet dafa am formation spéciale ñu koy def ci centre yi boo paree dangay ngay génn jox la sa carte professionnelle foo ko tàllal ñu jox la cër mais ñiy def nervi ñi amul ku ci yor carte. da nga war a am carte. da nga war a mën a am carte carte sécurité dafa am. loolu la carte sécurité dafa am mais ñi nii nii amuñu carte dañ leen a jël rek ci école yi la ñuy wër rek mooy ñi mbër yi mbër yi dañoo bari mënuñoo am combat loolu waral ñuy engagé lii mais du lu leen gënal tamit di dóor doomu aada yi moom loolu du lu leen gënal mais xëy na complexe moo leen ci dugal quoi ak bëgg gis leen ma mais loolu jaru ko ko quoi dafa ñaaw. jamono yi mu bari trop tey jii lan ngay lancé euh, message état bi parce que bari na trop nervi ku jug na nervi bi la rek bu neexoon état bi la la neex moo tax ñu koy def xam am na loo xam ne ni mënuñu ko defaloo am de tenue am na loo xam ne ni amuñu amuñu du amuñu sañ-sañ defaloo ko am de tenue waaye ñi nga xam ne ni conscience amuñu conscience entré matière ne xañ na jàngu leen war a jàng amuñu benn éthique amuñu benn benn moral bu mën a euh, doxe moo tax ñu leen koy defaloo ñu koy sañ a def xam nga ni boo amee yenn yenn xel yi wala nga am benn benn compétence bi xalaatoo ñu entraîné ba ci ne ñuy wër ñu lay fay pour ngay néewal sa moroomu sénégalais doole loolu ñàkk jom man ñàkk jom donc laa ko mën a tudde ñu moytu fitna fitna la ñu war a moytu parce que fa muy jógee yomb na waaye fa muy yem moo mat a sóor dina gaañ ba gaañaale ñoo xamante ne seen yoon jëfewul seen yoon newul ca ñoom li leen tax a jóg ñoom mooy message ma di jox rek nañu waaj ñu fitna bàyyi fitna bi. la jaajëfal kàddu yi rafet na macha merci beaucoup. mu gestu jeunesse bi rek jim leen a fiancé ñii di ñuy jël nerf yi nii. koo ci woon ñu def ensemble nga woo benn groupe am foo jaar ak ñoom ñu liggéey nit moom bu amee lu muy liggéey di def ci poosam rek yenn yi du ko def mais en généralement ñàkk liggéey bi dafa bari ci réew mi. nervi yi nga xam ne dañoo entraîné ba ponkale mu wutal leen foo xam ne nii da leen di defal formation ñu dem defee ñu dem def formation bu ñu génnee dinañ xam ne nii doxalee ak sénégalais yi dinañ xam ne ni liggéeyee ak sénégalais yi su ko defee sénégalais yi am jàmm seen yi mën a liggéey mën a am xaalis teral seen waajur te état bi jàppale ñun seen ñu am liggéey bu baax xam nga comme suñu moroom yi quoi waaw loolu daal laa bëggoon état bi daal.